mbokk internaute mbokk Sénégal yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV daa leen jàmm ñu ñëw àddu wax si mbir mi nga xam ni ñu bëri si askan wi ñu ngi ko doon xaal moo di kat moom mii di Pape Diop fu mu nar a dem foofee ca Benno Bokk Yaakaar am foofee ca Yewwi Askan Wi ni ngi noonu nag ginnaaw ba mu joxe woon li nga xam ni moo di dig ak ñi nga xam ni ñoo di journaliste yi dafa mel ni nag moom mi nga xam ni moo di Pape Diop mu jéem a choisir famille dem maanaam coalition bi nga xam ni nar na faa dem. moo di coalition Benno Bokk Yaakaar loolee sax mën nañoo wax ni bettu ñu bëri si askan wi ndaxte kate ginnaaw ba ñu gisee ñetti député yi nga xam ne ñoo desoon di Papa Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall ak moom mi nga xam ne mooy Pape Diop ñoom ñaar député yooyee ñëpp ku nekk xam na euh, fa ñuy féetee waaye moom mi nga xam ne moo di Pape Diop ñu bëgg si askan wi doon sikki saaka amoon yaakaar gu wér ne day dem ye nga xam ni moo di Benno Bokk Yaakaar ginnaaw boobee mu jéem a génn daal di koy confirmer mu daal di siy teg ay attaques yu métti ñeel ñi nga xam ni ñoo di opposition bi rawatina ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko muy ñaaru bu baax a baax euh, ni muy utiliser jeunesse bi ngir bëgg a taal fi nga xam ni moo di Sénégal yooyee kàddu nekk kàddu yoo xam ni moom mii di Pape Diop moo ko yëkkati. ginnaaw ba nga xam ni doon na amal yi nga xam ni moo di conférence de presse ni ki tey si alxames ji waaye sax bu dee def nañ ab ko bu ndaw gisoon nañ ko moom mi nga xam ni moo di Ousmane Sonko doon addu si mbir yu mel noonee doon alerté ñu bëri si askan wi nga xam ni ñooy fal ñi nga xam ni ñoo di ay député rawatina ñu féetee si opposition bi yooyu kàddu bokk na si moo di am na ñenn si ñi nga xam ne ñoo ngi si opposition bi di wootee seen bopp ay opposant te fekk ne ki nga xam ni moo di président Macky Sall moom moo nekk seen ginnaaw saa bu leen askan wi voteree ba ñu li nga xam ni moo di nombal tànk daa di war yi nga xam ni moo di seen askan daa di dem fekk ji ñi nga xam ni ñoo di waa Benno kon nag mbokki internet yi mën gaa na joxe seen commentaire nan ngeen gisee décision bi nga xam ni moom mii di Pape Diop jël na ko ngir dem foofee ca Benno Bokk Yaakaar. Dans un contexte où notre pays fait l'objet de toutes les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol, j'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.